auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ziare mbokki bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay di jiital sunu kàddu di siyaare Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal sunu borom gën koo dolli tawféex gën koo yàggale ci kanamu liggéey bi nga xam ne moom la ñu jiite muy liggéey sëñ Tuubaa bi noonu lañ koy ñaanalee mbooleem kilifa diine yi nga xam ñoo nekk ci yoon wi ak mboolem yi nga xam ni ñoo nekk ci yoon wi noonu it ñu koy ñaanal di ñaan suñu borom ci barkeb jotaay bi it suñu jàmbaar jooju nga xam ni kenn la ci sunu liggéey bi muy Serigne Saliou Touré nee na ko suñu borom gën koo dolli tawféex ak i ngërëm fa mu ne di ziyaare eh, sëriñ Saalix Fall mi nga xam ni mooy jëwriñu mbooloo Majmahun Nurayni di fédération bi nga xam ne moo lëkkale élèves ak étudiants yi nga xam ñoo nekk fii ci biir Thiès xam naa jotaay bi jootaay bu am solo la boo xamante ni saa su ne ci ngont yi ñuy def danañ ko toog waxtaane ko ndax bis yi dafa doon bis yoo xamante ni ñu ñëpp ci daara ma Majmahun Nurayni dinañ daje ñu daje daje daje woo xamante ni kenn ku ci ne ci ñun war ngaa war ngaa xam bu baax lan moo la boole ci biir mbooloo mi loolu it boo ko xamee day tax taxawaay yi nga xam ne war ko ko ci am nga mën ko ci am ndax dama koy fàttali saasu ne naa balaa ma jut balaa maa dugg sax ci développement bi sëñ Touba ak sëñ Mourtada laa toogal nii ñoo yor walla administration bi ci daara ji loolu nag li ma ci doon wax rek mooy fi ñu koy tàmbalee mooy defaat benn petit rappel rek ci lan mooy daara maj Majmahun Nurayni lan moo ñu boole ñun ñëpp ndax loolu lu am solo la ci ñun ñëpp ñu toogee ci jotaay bi kenn ku ne xam lan moo la boole ci ci liggéey bi Majmahun Nurayni nag dafa doon fédération boo xamante ni dafa lëkkale mbooleem élève ak étudiant bu ma nee élève ak étudiant nag ren euh, euh, at yi ñi nga xam moom lañ génn dama ci mën a yokk professionnel ndax daara ji ñoo ngi ko taxawaloon en deux année scolaire 2008 2009 te daara ji nga xam moom lañu fekk si tey muy Xóoyirul Mahaadi bokkoon ci acteurs yi nga xam ñoo taxawaloon liggéey boobu loolu nag 2000 2008 ak léegi xam nga ni ku fi doon jàng wala nga nekkoon lycée fii génn nga am na ñoo xamante ne am na ci luñ ne di ci yëngu loolu yàlla na ko sunu borom barkeel. ñi nga xam ne dañoo toll ci jàng it ñu xam ne jàng lañu toll suñu mborom barke seenum njàng ba liñ ci wut ci école yi ñu am ci lu koy njor daara Majmahun Nurayni nag loolu moo ko sos mooy mbooloo yoo xamante ne dañoo nekkoon ci école yi mooy wax naa ko léegi daara ju ne woon fii ay élèves yu ne woon fii lycée Ahmadou Ndak Seck muy xuyurul maay di daan fi taxawal lu mel nii am ñeneen ñoo xam ne it lycée Malick Sy lañ nekkoon daan fa taxawal li nga xam ne moom la ñii di taxawal fii ci école bi ñeneen tamit nekk CEPEX ak ak yeneen da école yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Thiès ñu dem ba gis ni liggéey bi ñuy def benn la ndax élèves yi nekk lycée Malick Sy ak élèves yi ne lycée Ahmadou Ndak Seck ak élèves yi ne beneen lycée bu mu mën a doon wala CM benn liggéey la ñuy def mooy danañ daje daayira bu ñu dajee daayira at mu jot dinañ dem siyaare sëriñ bi buñ paree ñenn ñi dinañ cant ñu gis ne liggéey boobu yépp nag comme benn liggéey la ci ay ci ay jotaayu euh, fasanti lay amee ñu ne nañ boole loolu lépp def ko benn loolu moo indi Majmahun Nurayni dama koy faral di wax nag naan fi mu ne lu kenn mën lu benn école mën maanaam ñaari école moo ko dàq fuuf moo tax loolu li ci gën a mat a xamee mooy kenn bu mu jàpp ni doolay Majmahun Nurayni fi mu toll nii kenn bu mu jàpp ni yow la ndax daara ju jàpp ni yow la rek maanaam dangay ngay jum ci ci ci ni ngay doxalee ndax mbooloo lañu woote booloo booloo te li li sëriñ bi gën a bëgg ci ñun mooy saasu ñu doon benn ñun ñëpp ñu doon benn kenn ku ne sa morom bu yëkkati nga yëkkate nag moom bu ñuy tegit ñu tegandoo masalan mën nañ koo misaal ci julli gi ñu doon def léegi rek maanaam dañoo jiital kenn muy sunu imam ñu doyloo ko nga xam ne moom mooy jiite bu sujjootee ñu sujjoot bu taxawee ñu taxaw bu rukkoo ñu rukkoo léegi imagineel moom mu ñuy jiite ci julli gi moom mu sëgg ñu ñu taxaw kon nu muy nu muy demee loolu nag mooy moom mooy mbooloo mii mbooloo moom nag bañ ko ba bañ ko sosee da dafa wut koo dañoo wut koo xamante ni moom lañ jiital ci liggéey boobu muy suñu personne morale nga xam ni moo jiite liggéey bi yépp kooku ka ca ka njëkk doon mooy Serigne Saliou Fall sëriñ Saliou Ndour ginnaaw gi sëriñ Saliou Fall muy wuute wuutu ko ci liggéey boobu yàlla na gën a yàgg moom nag li muy représenté ci mbooloo mooy ñu xamalaat ko bu baax mooy fi mu ne jëwriñ dafa dafa doon lu am solo ci ab liggéey ndax amaana moom dina xam loo xam ne ni war naa ñëw ca kanam te ñun ñu mu jiite xamuñu ko moo tax bu ñu ko jiitalee ñu ko war a bàyyi lu bari mu doxal ñu bañ ko fakkatal ci yenn yi mooy te ñun ñun ñu mu jiite it maa ñun ñu fexe lu mu ñu digal ci loo xam ne lu baax la maa ñu fas yéene cee ne ñun ñëpp fas yéene cee ànd kon liggéey maj ma noorin boobu nga xam ni mboolem daara école yi nga xam ñoo nekk ci biir Thiès ñoom la lëkkale loolu eh, mooy mooy liggéey bii nga xam ne moom moom moom la ñuy sumb nii saa su ne wax naa ko sànq ci activités yi ñuy def nga xam ne école dañ ko daan def xam ne lycée Malick Sy daan nañ dem ziar daan nañ def cant ziar yooyu ñu dem ba gis ni ziar yi bu ko defee benn maanaam dana gën a am solo ndax man maa ngi fàttaliku bu baax. 2007 laa laa dugg lycée Malick Sy ba ma fa duggee am na at moo xam dem nañu ziar waaye ziar ba nam mel ak 2008 ba ba mboolem daaree daje ba dem def ziar ñaari ziar yi bokkuñu ndax léegi kenn ko doon def mais lii juróom moo koy def wala wala wala ñeent kon misaal mi mooy lu kenn nit benn daara mën rek daara yëpp buñ dajee maanaam day gën a day gën a am doole loolu nag sëriñ bi defal ñu tawfeex ci. ci ndimbalu jàmbaar ji nga xam moom laa doon tudd sànq muy Serigne Saliou Touré mu dugal ci loxo bu baax ndax xam na ni booloo booloo booloo ci ay ay ndaw lu lu jafe la lu jafe lool la waaye moom mu def def ci tawféex dimbaliñ ci ba ñu mën a ñu mën a ànd Sëñ Tuubaa rek tax daara ma max noori nag bu ma koy wax dama dama naan daarale joo xamante ni benn kilifa lañ am genn kilifa lañ am mooy sëñ Tuubaa moom képp mooy sunu kilifa moo mooy jëwruñu daara ji nga xam ne li mu li mu li mu woote ci aw yoonam maanaam ci ñun ci loolu la ñuy ne lépp loo xam ne moom diglewu ko ñun nekkuñ ca loolu te sëñ Tuubaa mi ñuy mi ñuy mi ñuy liggéey nii di di ko woote woo moom li mu woote dafa am ci ay base yu leer yu mu ko teg sëñ Tuubaa mi ñuy liggéeyal maam lim ñu woo ba mu ñu woowee ba pare dafa wax nii lañ nii la nii nii laa bëgg ngeen doxee nii te loolu yomb na ndax moom kenn du ko yey ci dara ndax lépp lu mu lu waroon a bind bind na ko teg lépp lu mu waroon a wax wax na ko ñu dégg ay jëfam du du du fi jóge xasida yi ñuy jàng rek du jeex bind na téere yu bari yoo xamante ni ngir nit ki xam xam xam ci jëmmi boppam rek nan la war a def fi mu ne masalan dama koy misaal ci ñun ñuy nekk ci lycée mi lycée yi wala ñu nekk ci CM yi wala ñu nekk ci yeneen barab yi maanaam li ñu war a def liñ bu ñu xëyee li ñu war a def loolu Sëñ Tuubaa jàngal nañu ko fi ne nag lii suñu problème ñu ñun ñi ci ëpp ci ci ndaw ñi mooy dangay gis koo xamante ni maanaam CM lay ne CM nga xam ne li liñ ko liñ ko digal mooy mu dem jàngi wàcc fexe sàkku xam-xam moom day bëgg a brûler état étape yépp nag gis koo xamante ne dafa dem ba nekk université nekk ba foofu moom ki nekk CM bëgg a nekk université moom te loolu mënta ne yow CM nga ne doxal ay jéego ka nga gis mu nekk université daa dox ay jéego ba àgg foofu yow comme CM nga ne BFEM lañ la sant nga am ko boo amee BFEM nag ñu orienté la ci lycée bi nga dem ci lycée bi jàng diggante bi ngay nekk ci lycée bi tamit lenn lañ la sas mooy nga am bac yow sa yitte bu mu doon leneen lu dul am bac te daara ji ci culture excellence boobu lañ lañ mës a nekk mooy ñun ñëpp man mii toog it sëñ Saliou ak keneen ak keneen ba ñuy toll ci ci ci nekk ci école yi di jàng culture excellence la moo ne moo ne woon suñu devise mooy ci daara ji lañu ne dañuy fexe ba bokk ci les meilleurs ñi nga xam ni bu ñu bu école bi wootee euh, wala wala ñu dem bac ñuy rappel suñu tur day jiitu ca kanam ñun ñëpp nag foofu lañu ñu war a ne mooy képp koo xam ne yaa ngi ci biir lycée di jàng sa yitte bu mu doon leneen lu dul nga fexe noo sàkkoo bac nga am ko xasida yi ñuy jàng nag dafa am ci lu ñuy dimbale mooy ñu bokk ci daara ji di dox di jàng xasida dafa am lu ñuy dimbalee mooy xasida yi ñuy jàng day leeral sunu xol maanaam masalan misaal bi ma ci jël mooy da ngay jël ñaari nit ñoo xamante ni kii laataa moo dugg école daa dem daara ja jàngi alxuraan ba alxuraan jiitu ci dëndam mu dem jàngi école nga jël keneen ki nga xam ni moom ba mu ba mu amee trois ans dañ ko yóbbu euh, petite section muy waaye ka fecc tëbaka dal fi mu nekk fi mu ne kooku moom ñoom ñaar bu ñu dajee ci école bi ka jàngoon alxuraan moo koy moo koy moo koy ëpp fuuf ay moyen wala moo koy mën ci li ci li ñu wote ndax leeru alxuraan moo jiitu ci moom ba noppi ñun nag comme yàlla dogal na ni ñun ñu ci ëpp sëñ Tuubaa dañoo dañoo newoon ci beneen yoon di dox ci yoonu sànkute ma mu jëlee ñu ca loolu indi ñu ci xaside yi nga xam ne ñun ñun ñu ci ëpp ñu mel ni man ba ñuy dugg ci biir lycée bi sax amaana laxasaayu woon doon woon ay murit waaye dañoo dugg ci biir lycée bi fréquenté daara ji tuuti tàmbale jàng xasida tàmbalee soppeeku ñu ci ëpp ay ay ay footballeur yu mag la woon ñenn ñi ay toorkaal la sëñ Tuubaa dimbaliñ ci loolu ñuy jàng xasida yi di ko di ko dund kon li ma xam moom laa wax sànq mooy ñun suñu culture mooy nañ fexe ñun ñu nekk ci bi nañ fexe am bac ba noppi suñu yitte na doon lool ba pare durant li ñuy nekk ci biir école tamit maa ñu fexe li ñu war a xam ci suñu wàllu diine maam ñu xam ko sunu njàpp bu tojee nan lañ koy defaree sunu julli bu yàqoo nan lañ koy defaree yeneen ak yeneen yoo xamante ni ay farat la yoo xamante ni ab doomu aadama da ko war a xam ndax fi ne bu doon loo xamante ne waruñu koo xam Sëñ Tuubaa du bind téereem yi yépp te du sixaar te du subbaan jawhurun nafis yeneen ak yeneen yépp du ko bind ndax bu dee euh, comme moom amuloon jot lu tax mu bindal ñu yooyu yëpp nag ngir ñun ñu xam la kon ñun nañu fexe farlu ci li nga xam moom lañu sëñ waa bàyyeel ci am ndaw war koo xam maanaam ñun ñëpp fexe fexe nekk ca loolu te damay damay faral di wax ni naan tasoodu sixaar ñun ñii ñëpp toog ci salle bi maanaam dafa war a doon loo xam ne dañ ko war a maîtriser képp koo xamante ni yaa ngi yaa ngi yaa ngi doon ndaw di sàq xam-xam da ngaa war a maîtriser tasoodu sixaar xam ko mën ngaa bañ sax nekk fanaan naan wax na di di di di jàpp teg mais na nga xam li muy wax quintessence bi muy bi muy wax maam nga xam ko loolu boo ko xamee dalay dimbali ci lu ci lu bari loo xamante ne da lay la génnee ci ak réer ndax ñun am na ci ñu ci bari ñoo xamante ne ni ñuy jëfee maanaam du dañoo xamadi de waaye dañoo ñàkk xam fi ne bu ñu xamee nag dañuy dimbali ci lu bari loo xamante ni du ñu du gaaw def ay erreur loolu nag moom la Majmahun Nurayni woote moom laay wax ni li sëñ Tuubaa woote ci eh, ab dongaam ni mu war a mel ab liggéeyam nan la war a mel ñun ca loolu lañ ne kon loolu moo mat a xam tam tam mat a gëstuwaat leneen li ci topp mooy ci ndigalu sëñ Saaliwu dañoo dafa am ay remarque yoo xamante ni comité directeur bi dañ ko def réunion keroog. ñu seetlu woon ay remarque yu bari yoo xamante ni daara yi ci biir Majmahun Nurayni ñoo ngi tàmbale doxe noonu te doxin yooyu warut remarque yooyu nag bokk na ci li ci jiitu mooy ngont yi ñuy def ngont yi ñuy def seetlu nañ ni daa daara yi nga xam ne ñoo composé Majmahun ni daara yi nga xam ne dañ ni ñoom ci biir Majmahun Nurayni lañ bokk ndax foofu bu ma bu ma defee entre parenthèse damay wax ni fi mu ne am na ci ay écoles yoo xamante ni am nañ ay daayira am nañ ay daayira écoles yooyu bokk am na ñoo xam ne bokkuñ ci biir Majmahun Nurayni kon ñooñu kenn mënu leen a ñooñu bu ñu xëyoon ne dañuy def cant ñoom la concerné waaye liggéey Majmahun Nurayni nag àgg na ci fépp école nekk la ñu liggéey la ñu seen joxoon mooy fépp école nekk ñu fexe ba dem waxtaan ak ñoom bool leen ci biir liggéey bi loolu nag. képp koo xam ne da nga ni ci biir maj ma xun nga bokk dafa am ay charte yoo xamante ne moo la tënk charte yooyu bokk na ci activité yi nga xam moom lañuy def lépp benn lañ koy def activité yi ci jiitu mooy ziar yi maj ma xun ñetti ziar la am ci lu officiel ziar bi ñuy def kër sëñ Saliou te moom lañ mujjee def nii ziar bi ñuy def ci xalif général des Mourides. ak ziar bi ñu def ci xalif général de Baye Fall ñetti ziar yooyu la lañ xam ci ziar yoo xam xamante moo officiel moom la ñu am ci at mi ñaare nag dinañ am ay ziar yoo xamante ni du doon chaque année ñu dem eh, ku mel ni sëñ Amsatu sëñ bu wala sëñ Cheikh Abdou Latif nga xam ñooñu ay wëllëre daara ji la ñaare ñu organiser ay ziar ci ñoom waaye ziar yi nga xam ni chaque année moom dañ koy def la budda mooy ñetti ziar yi léegi nag ak leneen li nga xam ni mooy wax naa ko sànq mooy daara yi laataa ñoo booloo kenn ko ne daan def cant ci biir ci biir école ba nga nekk waaye ñu jotoon ndigal ci sëriñ Saalihu ture maa mu ni nañ jël mboolem cant yooyu ñuy def maa ñu def ko benn fi mu ne nag mu tolloon ci liggéeyu maj moom noonu daan gën a yaatu ndax fi mu ne actuellement nii may wax a yéen fi mu ne ñoo ngi 17 daara yoo xam ne ñu ngi ci biir maj moom noori ni léegi di 17 daara ñëpp buñ bëggoon a cant ci mois de di 17 école est-ce que ku mel ni sëñ Salim mi xam mooy jëwriñ ji est-ce que dina mën a dem fépp moo am nit la di set école moom mënu koo wóor ci benn ci benn samedi moom set école yooyu rek fi mu ne buñ bu ñu étaler programme bi ñun ñëpp xam nañu école octobre lay ubbi école bi bu ubbee octobre balaa balaa balaa gars di inscrire. mu wala ñuy def yenn yenn kii daanaka décembre day day jot balaa daara ji di commencé woon activité am di commencé euh, daara ji di commencé euh, kii ndax euh, boo demee ci école yi boo xoolee da ngay gis ni dina am at moo xamante ni mboolem xaaju daara ji sax dañuy génn ndax ñi cëpp dañuy amandoo bag dañuy dem léegi balaa école di commencé ba membre yi commencé waat daje maanaam day dem day dem ba mi ba janvier 17 daara yi may wax fi mu ne bu ñu leen étalé ci janvier ba juin bi ñuy tëj maa euh, mboolem samedi yi fi ne nga génne ci samedi yi nga xam ni moom la ñuy def composition yi samedi yi nga xam ni concours yi ci lay am ak yeneen ak yeneen boo xoolee samedi yee tey des 17 daara yi sax duñ ko mën a mat kon kon tawféexu bu ñun ñëpp ñu boole def benn cant maanaam tawféex gi boo xoolee foofu da nga xam ne loolu logique la. léegi nag lu loolu nag bokk na ci yi nga xam ne charte yi nga xam ni moom la daara ji nii bépp daara joxaan da ngaa bokk ci biir Majmahun Nurayni cant ya nga doon def maanaam koy bàyyi cant yooyu nag moom la ñu remplacer ak jotaay yi rek jotaay yi ngi ñuy def ndax dama koy faral di wax naan naan cant yi ñuy def ci biir école yi cant yi ñuy def ci biir école yi ak cant yi ñu mën a def feneen ak feneen maanaam génnul lii ñuy def cant koo gis jàng xasida la bernde jeex na tàkk loolu képp la cérémonie officielle yeeg diw lañ ko parrainé diw lañ ko maree ne yooyu moom ay yeneen la rek waaye waaye bu dee bu dee lu wér loo xam lii la jàng xasida bernde kon ci liggéey boobu nag lañ ne mooy daara jëpp joxan da ngaa bokk ci maj moo noonu ni euh, la budda da ngaa da da da ngaa war da ngaa war a sax ci sart yooyu nga xam ni moom la daara ji teg léegi nag gis nañ ni ngont yi ñuy def nag ci biir école yi ñi koy jëmbal mooy bu ñu nee 17 daara lañ bu ñu nee benn daara moo ci aye mboolem yeneen 16 daara yi des yëpp dañoo war a ñëw nag jëmbal jëmmal ngont moomu jëmbal ngont mi 16 daara yëpp maam 16 daara maj ma nooree ni bu ñu ñëwoon duñ xaj ci biir saal bi kon ban problème lañ am am na ci ñoo xamante ni. maanaam tey tey nouvelisé ñoo aye ngont am na ñoo xam ne mat na faa la ñuy dëkk ci biir mat boo nooree lañu bokk de mais dañ naan la lycée ma lycée nouvelisé daa sori te waa lycée mat na faal bu ñu aye woon ngont dañuy bëgg waa nouvelisé ñëw ca ngont ma léegi kon li kon nouvelisé soriwul ak mat na faal yooyu nag lañu gis ni fii ne moo tàmbalee bari ci biir liggéey bi mooy bu ñu wootee ngont am na ci ay daara yoo xam ne duñu duñu duñu présent ci ngont yi présence bi tamit du ci kuréel du kuréel gi mooy mooy déplacé wu ñëw waaye daara ji moo war a déplacé wu ñëw ci biir ngont mi daara ji nag buy ñëw day kuréelu xaside moom daara joo dem mooy xol ba mooy xol mooy xolu daara ji léegi nag daara ji buy ñëw day ànd kuréelu xaside gi léegi kuréelu xaside gi nag bu ñëwee ak daara ji bu ñëwee ki nga xam mooy yor conservatoire bu gisee ni maanaam jotaay bi laaj na ñaari kuréel yu ñoo xam ñoo ñuy defar animation culturelle ndax xasida yi kuréel gi ñuy jàng tamit ak daara yi ni ñu bare du loo xamante ni dañuy ñëw toog kenn ku ne di wane ab daaj boo xamante ni mën nga ko wala daaj boo xam ne moom nga gën a jekk wala sa neex na ngay ngay ondule fii ñu kii maa ñun loolu taxuñoo jàng wax naa ko démb rey réunion conservatoire njàng mii ñuy def nii lu Sëñ Tuubaa digle la lu mu bëggaloon boppam boppam lay mooy moom critères yi ñuy def nga xam ne nit bu ñëwee di bokk ci kuréel ñu ne dañ koy defal tes déglu ko critères yooyu moom moo ko ñu ko def ndax moom moo woo sëñ sàmba ni ko tànnal ma fukki nit ak ñaar ñoo xamante ni danañ ma mën a yoral liggéey bii nga xam ne buñ daan toog buñ daan ñoom fukki nit ak ñaar yooyu daan jàng buñ daan jàng ku ci daan rax moom dina ko xam kon critères yi moom moo ko njëkk moom moo ko njëkk a njàng moom nag comme moom moo ko digle moom moo bëgg moom moo digle njàngum njàngum kuréel mii te fi ne njàngum kuréel boo xoolee yàlla képp ci ne ñi koy def te yàlla tax nag laa wax ñi nga xam dañ koy def te yàlla tax dañoo xam dañoo xam li nga xam moom moom moo leen di jariñ maanaam yàlla képp ci ne ndax fi ne booy jàng bu dee yaa ngi jàng dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam boo paree sëñ bi sa fàmbu yi dara du ci des ndax njàng la moo xam da ngay yëkkati di yuuxu di baaral ak ak yeneen ak yeneen loolu mënoo faa di kii mënoo faa di xool koo séduire ci biir ci biir mbooloo mi amul bu dee bu dee bu dee yaa def na na nga ko war a defee mooy munoo faa ne di moo tax fi ne boo xoolee ci règlement intérieur conservatoire maanaam da ngay gis ni dañuy tere sax nit nekk ci kuréel di tàgg montre ndax fi mu am na koo xamante ni bu bu takkee benn montre nii bu bu valeureux maanaam buy buy bëru loxo boobu lay yëkkati ca kaw def nii ngir gaa gis ni montre bi mu takk daa rafet ba ci règlement intérieur yooyu da ngay gis ni dañ ci tere koo xamante ni daa nekk ci biir kuréel gi di génne ay vee woto étiforme yi dégradé moom waxuma ko moom règlement intérieur loolu da ca bokk ngir ngir gën a sellal liggéey bi nga xam moom lañ ne rek ngir gën koo sellal rek te sell gi moom mooy mooy tax moom moom ki ñu koy defal ki ñu koy defal nii muy sëñ Tuubaa mooy tax moom mu nangu ko ndax moom sëñ Tuubaa moo doon koo xamante ni li ma wax sànq amul jot fi mu ne liñ koy wooteel yëpp lu ca seelul du ko jël te ñun dañoo bëgg sunu liggéey bi ñu koy defal maanaam bu yow ma xiyaame mbokk ci liggéey bi nga xam ne moom lay bàkkoo ñun lool ñun lool képp la ñuy sàkku jotaay ñuy def maanaam lu mu lu mu gàtt gàtt ak lu mu bari bari maanaam dañoo bëgg mu nangul ñu ko teel ñu jëf ji liggéey yi nga xam moom lañ koy defal di dajale suñu àddee di ko dem yóbbul maanaam dañoo bëgg mu nangul ñu loolu ndax ñun leer nañu bu ñu ko nangulee maanaam li ñu bëgg ci moom dinañ ko am moom li mu bëgg ci ñun dana ko am kon présence ngont yooyu lu obligatoire la loo xam ci mooy moo war bépp daara joxan da ngaa nekk ci biir fédération bi mooy saa bu ñu wootee tey ngont ni benn école lañ koy defee mboolem di yeneen daara yi ci des dañoo war a mobiliser wu teew ci ngont ma loolu nag eh, keroog ba ñu waxtaanee dañ ni lenn moo lenn moo tax mooy tax daare ji du mën a teew ci ngont bi keroog samedi bii passé mooy ngont mi wees daloon na waaw Fathul li lycée technique nga xam ne jour bi ñuy jour bi ñu jàpp ngont canaba bi ñoom dafa fekk ñu école ba programme ay examen ci biir école bi nga xam ñenn ci daare ji dañoo dañoo doonoon ay ñuy def examen ci biir loolu ngant lu far la loolu fi ne bu ñu wootee ngont te loolu am bàyyi bàyyi bàyyi ñëw ci ngont bi dem dem defi examen boobu loolu mooy farat la kon loolu mooy ngant li nga xam ne moo mënta ñàkk yeneen ngant yi nga xam ne yenn école di yenn daara yi dañ koy joxe mooy daara ji organiser ngont ci benn école ngeen dem di di maye keneen benn daayra loolu tamit daara ji da koy aaye loolu bokk na ci charte yi nga xam ni daara daara ji da ko tënk gannaaw présence ngont yooyu prestation kuréel yi doon doon naa ci wax mooy bu ñu teewee ci jotaay yi buñ euh, ñi nga xam ñoo yor conservatoire bi bu ñu gisee ni kuréel sàngam xaj na ci biir jotaay bi ñu dugal ko loolu nag du du du par exemple nii ñu koy nii ci ñëpp ñi ëpp di ko defee nga xam ne ñoom day ñëw ci ngont bi pour jàng bu ñu jàngul du ñëw ci ngont bi maanaam loolu warul sëñ Moussa Seck buy jugee Madina Fall dafa war ñëw ci ngont bi ngir man membre Majmahun Nurayni laa boo xamante ne Majmahun Nurayni daa woote daa woote ngont dama cay dem waaye ñëwuma ci ngir ngir man damay ñëw ñu jox ma ma jàng buñ la joxul nga jàng nga génn fii tàmbalee kaas naan gars yi sawaay dañoo soof lu tax ñun joxuñ ñu jàng maanaam ku loolu moom koo dégg ku koy wax am na feebar ni ko sëñ baaba di waxee am na feebar bu rëy boo xam moo nekk ci moom te moom balaa moo am jàmm dafa war a dem faju ji fi ak murit ak murit sëñ bi lu mat a gëstuwaat la lu mat a xamit la sëñ bi ak murit defaru la defaru sëñ Tuubaa lim lim lim lim lim noonu daj ci ay nit daan leen defar defar nga xam ni moo moo taxoon mu mu mu daan sanc fu sori ngir ñu bañ a jox soog nit ñi rek nga xam bu la defaree ba noppi nag mooy da ngay génn boo ñëwee ci biir dëkk bi dara dootu la mën a changé ñun ay ndaw lañ nañu fexe xam lan mooy ak murit ak murit yombu deseñ bi nii ñu ni ni ñu ko tuddee ni nga xam ne ku sol sa baylaat bu rafet rek takk sa kaala eh, sol sa maxtum dox ñun la murit rek nga jàpp ni yow àgg nga ca plafond ba man demee wut noonu deseñ bi sëñ bay jaxate dani murit dëgg yombut loo yi nga wax ne ab murit laa te doo ab murit mu ni murit dëgg day dee te deewul ndaxam lu dee di metti metti dabul ak murit mooy mooy loo xamante ni fi ne yomb na yomb na ci jamono jii nii ñu gis la ni la murit murit nga nit sax dalay gis rek gis la benn yoon ni la murit saadix nga te dara wóoru ko ci maanaam lu lu metti la loo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a gëstu xam lan mooy ak murit damay wax ni xasida yi ñu nekk ni di ko jàng maa maanaam ku ci nekk cinq di ko jàng te te tam te lii di jikko mer mer mënut a denc ci yow maa yow moom dangay ngay jàng nii rek waaye jàngoo dëgg-dëgg ay gis sa bopp fi mu ne kenn ku ne ci ñun eh, bu dee ak murit dëgg moo ngi ci yow maam koo gis danga koy jàppee ni kii moo la gën mais mais am na ñoo xam fi ne bu ñu yoree buñ bu ñu yoree benn jukki wala wala ñuy walla mun ngaa fanaanoo di jàng xasida maam boo ñëwee ci mbooloo mi kenn mën na koo bañ a xam mun ngaa fanaanoo di jotaay ak sëñ Tuubaa maam waaye waaye boo ñëwee ci mbooloo mi bu ko kenn war war na koo bañ a mën a xam ndax la ngay la ngay jotaay ak sëñ Tuubaa yow yàgg sa diggante ak sëñ Tuubaa la jarul jarul nga jotaay ak sëñ Tuubaa ci guddi gi ñëw fii ci mbooloo naan man démb jotaay nag sëñ Tuubaa amul sens amul lum ñuy yokk ñun ndax boo xoolee boo ko waxee amul lu ñuy lum ñuy apporter te sëñ Tuubaa mi ñuy mi ñuy liggéeyal nii maanaam sëñ bi lu sell la bëgg moo tax ñun suñu jëmm yi dañ ko war a gën a sellalaat sell gi ñuy sellal suñu jëmm mooy mooy àgg ci ñun ci ñun bu nu toogee di jàng xasida li ñuy jàng suñu xol yi lay jógee te buy génn suñu xol yi maam ñiy déglu seen xol la jëm fii ne bu am na noo am na noo xamante ne bu ñu neexee bu ko bu ko neexee nit ñi di ko dégg maanaam sa baat sa baat mën naa neex lool nga mën a jàng lool jekk wayu lool mais boo ko wayee fi ne gars yi dañ naan nii rek foofu la yem mais li nga xam nit mën na koo mën na koo dem tëju néegam toog di ko déglu ba ba sa ba tàqali ko sagom maanaam lool ci xol rek la mën a jóge kon ñun ñuy jàng xasida yi ci kuréel yi maanaam nañu gën a seetlaat suñuy pas-pas ci loolu xam ne fi mu ne programme yi ñu ñëw nii jàng taxuñu fee ñëw buñ ñu tey dañoo war a jàng rek maanaam dañuy ñëw bu ñu jàngul duñ ñëw maanaam képp ko am esprit boobu maanaam esprit boobu mën nga koo génnee dès à présent nga génnee ko ci saxel teg fële te xam ne loolu dajalewuñ ci biir maj mox nooré ni dama koy faral di wax naan kuréel yi kuréel yi ni ñu toll maanaam bu ñu demoon ci benn jotaay ñu ni kuréel sàngam maanaam nañ jàng yóbbaale mbooloo mi maanaam ñun ñëpp dañoo war a doy sëkk dañuy xam ni kat ñun daara ji moom moo tànn kuréel sàngam ngir mu représenté ñu te loolu te loolu noonu moom moo indi kuréel kuréel 1 gi ngeen dégg ndax kuréel 1 gi bañ koy taxawal dañoo defoon sélection def ni bépp école boo xamante ni membre gi ci biir maj boo noore nii dañ dañ fay fexe jël kenn wala ñaar ñoo xamante ne dañuy ñëw ñu def ko benn sélection sélection boobu bu ñu demoon ziar wala ñu dem jotaay bu mu mën a doon sélection bu sélection boobu bu jàngee rek maam jàngal école yëpp jàng nañ kon moo loo loo la waral boo xoolee fi mu ne ci kuréel 1 gi boo xoolee membre boo ci jël muy siidi miy daaj ak keneen ak keneen ak man mii keneen ak keneen koo koo jël lekk am na ci benn école boo ko mën a rattaché Sidi Wade ba bañ koy dugal ci biir kuréel gi seem jàmba gën la newoon ginnaaw gi ci la nekk lii lycée Ahmad Ndak Seck sëñ Saliou Ndoye lycée Malick Sy la nekkoon man mii lycée Malick Sy laa nekkoon nga xam ne koo ci jël rek ba ci ñi nga xam ñoom lañ mujjee dugal ci kuréel gi euh, boo jëlee Cheikh Mbacke Basir wàdd ki ñeneen ak ñeneen kenn ku ne boo ko jëlee rek dangay mën a jël ni ci école sàngam la jóge loolu loolu nag mooy tax fi ne bu ñu demee ci benn jotaay bu buñ buñ jàngee rek maanaam day mel ni daara yëpp jàng nañ loolu loolu moom loolu moom mat a xam ci wàll ci wàllu conservatoire bi ci wàllu kuréel dara fa mu jëm du fa defar dara ndax 2000 2009 ak léegi ay ay at la te koo képp koo xamante ni boobale yaa ngi ci biir daara ji génn nga ci biir li génn nga fii nii ci entité bi ñu nekk dem feneen te saa su ne yaa ngi bàyyi xel liggéey bi maam ñooñ dañoo dañoo mat a eh, ndokkeel dañoo mat a sargal tamit ci biir liggéey bi xam ni ay jàmbaar lañ njàmbaare googu nag ñun ndaw ñi ñun ñi nga xam dañoo nekk ci biir lycée bi maa li ñu jariñ nag moo ñun ñu jéem roy ci ñoom ñoom ñëpp fexe nañ li ma doon wax sànq ñoom fexe nañ ba ba ñu waree jàng jàng nañ ba ñu waree xam ba ñu waree am bag am nañu bag ba ñu waree dem defi ay concours def nañ defi ay concours ñu ci ëpp ñu